أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tey ñoo ngi ci kitaabu tawxid ñu ngi toll ba tey rek ci buntu ñaar fukkeel ak ñaar ci ma jaa anna baada hadihi al umma yacbudu al awthaan ci misaal ak dalil yi sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon joxe ne xeet wi àdduna du jeex lu dul lenn ci xeet wi danañ jaamu ji xërëm tey ñu ngi jël xadiisu albarqaani mu topp ci xadiisu thawbaan mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na wa innama axaafu ala ummati al a'immati al mudillin du boobu la wa ida waqa alayhim sayfu lam yurfa ila yawmi alqiyama wala taqumu saa xatta yalxaqu xayyun min ummati bilmushrikin wa hatta taabudal fiatun fiamun min ummati al awthan wa annahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathun kulluhum yaz'amu annahu nabi mu ne wa ana xaatamu nabiyina la nabiya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati ala على الحق ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى بوك جولي تاي نيغي جيل حديث برقاني moom sëriñ bu mag bii mu ngi tudd Abu Bakr góorgóorlu na ci dundam ba dajale ay xadiis yu bare bare bare bari def ko ci téeréem bu mu tuddee musnad as saxiix jamaa fihi al ahadis as saxiixa boole na ci xadiis yu wér wa yuqaalu annahu jamaa fihi ahadis as-sahihaini lenn ci borom xam-xam sax dañu ne dafa jël xadiisu yi wér ci buxaari yi bëri ci muslim mu dajale ko waaye wa zaada alayhima ma saxa indahu min al ahadis dolli na ci xadiis yooyu li wér ci moom moom sëriñ bu mag bi moom mooy ñuy nettali xadiisu yonente bi alayhi salaatu wasalaam bii nekk sunu kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne innama axaafu ala immati ala ummati al aimma al mudillin li ma ragal ci sama xeet wi moo fi bàyyeekoo man yonent bi ragal naa sama ginnaaw xeet wi ay njiit yuy réeralaate jiite leen al aimma mooy njiit jamu imam wal imaamu huwa al qudwa alladi yuqtada bihi fi xayri aw shar yonent bi nee na li ma ragal ci xeet wi li ma tiit sama ginnaaw bu ma fi bàyyee ko li ma ragal ci sama xeet wi mooy ay njiit yuy réeralaate ñoo am ay njiit yoo xam ne ñoo leen di réeral ñoo leen di sànq allahu akbar mu ne fa in kaana al qudwa min ahli dalala dallat al umma mbokk yi xam ngeen ne njiit ku jiite nit ku jiite mbooloo wala nga jiite kër wala nga jiite ay nit boo réeree nit ñi nga topp nu ñuy def dañuy réer dañuy sànku mu ne bu ñu sànkoo musiba dal seen kaw mu ne ak ku mu mun a doon nag mun na nekk al umara addalluun mun na nekk njiit yu sànku wal ulama uddalluun mun na nekk borom xam-xam yu sànku wal ubaadu daalluun mun na nekk jaamukatu yàlla yu sànku wa duaatu daalluun mun na nekk ñii woote ñu sànku kullu haulaai min al aimma al mudillin ñii ñëpp dañoo bokk ci ay njiit yuy réere laate mbokk yi fa ida qaama fa ida qaada al umma haulaai qaaduha ila al halak bu fekkee ne ñii ñoo jiite fan la ñuy jëme xee bi ci alkande bu fekkee ne ñi dëgg ñoo jiite xeet wi xeet wi dañuy jub waaye bu fekkente ñu réer ñoo ñu ragal yonent bi doon ragal ñoo jiite xeet wi fu xeet wi jëm tey nag hadis bi ku nekk yow yaa koy firil sa bopp ndax am ngay bët am ngay nopp am nga xel te yaa ngi gis liy xew ci àddina bi tey lan moo tax lislaam munta taxaw mooy li yonent bi ragaloon loolu am sunu kaw mooy ay njiit yuy réeralaate léeg-léeg sax soo koy wax hadis bu mel nii boo koy firi ci yenn pénc yi da ngay gis ku ci gis boppam ndax ci mbooloo mu réer la bokk parce que ku réer moo jiite mbooloo moomu léeg-léeg sax nga gis ci mbooloo mi toog am ku ne ah kii de ñoom diw lay wax tey ku waxal yàlla rek gis ngeen ci jullit yi ay jullit yu réer wala jullit bu dul julli lan la dafa réer wala dafa jub ah jullit bu dul woor dafa réer wala dafa jub jullit bu dul aji màkka nag jullit bu ëppal ñeenti jabar nag jullit bi gëm ne yonent yàlla Muhammad mi ngi Sénégal nag voilà te lii ma wax yëpp yéen a ngi ni toog ci néegu yàlla ngeen nekk ku nekk lii ma wax teg na ci bëtam te lii laa ñemee wax am na yeneen yoo xam ne yéen a ko gis ngeen ko te yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax innama xaafu aleykum ñu ne ah mu ne al aimma al mudillin wallahi njiit yu réere laata laa ragal ci yéen sallallahu alayhi wa sallam loolu mu ragaloon ndeysaan mu ñëw tey tàbbi suñu kaw daal di ñëw mu ne ñu bon bu ñu jiitee xeet wi xeet wi bon borom xam-xam yi dañu ne isa zalla al aalimu zalla al aalamu bu borom xam-xam tarxiisee mbooloo mi ko ñëpp yi ko topp ñëpp dañuy tarxiis lu tax soo waxee ñu ne sëñ bee ko def dama koy def wala waaw jeex na mu ne qawluhu axaafu ala ummati almudillin wax ji yonent bi ne dama ragal ci xeet wi ay njiit yuy réeralaate nee na déggin googu anna al aima almuslihina xayrun lil umma mu ne kon luñ ci dégg su yonent bi ne dama ragal ñu ñu ñu réer jiite leen kon lan la bëgg ñu baax jiite ñu ndeysaan suñu baax jiite suñu kàddu nekk benn sunu mbir yëpp yéwén ñu dellu ci yoonu yanant bi dellu ci yoonu nit ñu baax ñi su ko defee yiw daal di am ci islaam yiw daal di am ci monde islamique waaye la yonent bi doon ragal te mooy wootekat yu réer njiit yu sànku ñu xamul dara ñu topp seeni bànneexi bakkan sori lislaam lan moo dal xeet bi fa innahum yusuddunaha anil xaq ñu tere tey nit ñi dem ci dëgg gi da ngay gis dëgg gi nekk nii waa ji xam na ne bu nit ñi demee ci dëgg gi mu wéet mu orienté nit ñi ci moom li mu nekk pour dëgg gi daal di naasaay te tey loolu moo am au lieu tey nit ñi woo nit ñi jëme leen ci yàlla ak yonent déedéet dañuy woo nit ñi di leen jëme ci ay yoon ay tariixa ay yoon ay association ay mbooloo ay ay ay ay ay ay ay kenn xamul Sénégal li fi nekk ci ay mbooloo xataa sax mbooloo yi nga xam ne sëriñ su mag saa ko tànnoon tey mbooloo yooyu éclaté na wu divisé wu centaine ñoo ci nekk wala tarixa boo dem tarixa ba xar na yeneen tarixa judduwaat ci ba ñu indi woon tarixa bi tey bu ñu ñëwoon ñu ne leen ñii ci yéen lañ bokk dañ naan ñii ah ñii de xawma leen bokkuñ ci man wala tey loolu lañu yàlla natt kon li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sama parfum bi des bi il faut ma may la ko yow amoon nga parfum de yow sax laa ko naroon may ndax yow ñu lay waxee sallallahu alayhi wa sallam dafa dal sama xel trop ñuy feeñal bëgg yonent bi gars yi mu ne ñi nga xam ne dañuy woo nit ñi taqale leen tere leen jaar ci yoonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu jàpp ne li gën a garaaw tey mooy jàpp ne tegu ci yoonu yonent bi ak dellu ginnaaw la c'est ça mun la gisee nga sol yenn saay ñu gisee nga sol yenn soli nga gis ku ni waaw mais yow mais lii yëre yi mooy lan bi wees na jamono bi wees na wala wala jigéen ñi jigéen ñi muuru benn vendredi bu le passé bi may def émission bi XFM am na ñaar ñu ma téléphoné ba ci ñett naan ma yenn jigéen ñi daal ni muy ni ñuy muuroo war ngeen cee wax ndax loolu daal vraiment présentable quoi ak jamono bii ñu nekk nii waaw loolu la ñooñu wax jamono bii ñu nekk nii daal vraiment di solu na yonent bi jigéen ñi daan soloog nit ñi daal vraiment ak jamono bi loolu daal vraiment war nañ koo seetaat est-ce que labbe yi dégg ngeen ñuy wax ci niñ doon solo war nañ koo sol seet soluwaat labbe yi ak islam lu fi jiitu solu labbe yi ak colu boobu jigéen ñi doon solu ban moo fi jiitu est-ce que dégg ngeen ku ne waa non waruñu soloo nii lu tax ñii di soloo nii mos ngeen dégg ku ko wax doo ko dégg ku dégg mukk julli di rek ngay dégg ndeysaan julli di rek julli di rek ñoom rek ndeysaan ñoo am problème ci àdduna bi waaw ngay critiqué ba critiqué loo xam ne yonent bi moo ko indi wala ba mu ko gisee def cee noppi wax ci dara sallallahu alayhi wa sallam nee na léeg-léeg li gën a doy waar mooy lenn ci ay nit sax fekk fi li yonent bi nekkoon ñu ne lii ku ci nekk da ngay deltu ginnaaw danga ko war a beesalaat ñu bëgg a jaaral jullit ñi ci yeneen yoon yoo xam ne ñoom ñoo ko fent yoon yoo xam ne ku ci jaar rek réer kon li yonent bi wax mooy dëgg mooy lan li ma ragal ci yéen mooy ngeen am ay njiit yuy réeralaat mu ne su boobu nag su loolu amee bis bu ngeen yàlla nattoo ngeen am ñu leen jiite ñoo xam ne dañoo réer ah wax dëgg yàlla ku réer su jiitee ay nit wallahi foog mu réeral leen wala kuréer jiite nit ñi fu mu leen jëmee tey ñun ñëpp bu doon ànd di jaar ci benn yoon ñu teg suñu kanam ku xamul fañ jëm dana yegg bu dem wala ñun ñëpp dañuy dem ànd di tukki ñu teg suñu kanam benn waaye boo xam ne moo nuy yóbbu te fa ñu jëm xamu ko fu mu jëm te suñ ko nee du fii du nangu dégg suñ ko nee du nii mu nangu du bañ fu ñu jëmee ñun ñëpp kenn du dellu këram ñun ñëpp dañuy alal ko waaw ci Sénégal ngay gis ku ñuy tuddee njiiti diine te jàngul wala gisu leen ko waaw kay bu sawee yàlla du leen wax lu ngeen gisul njiitu diine te jàngul diine waaw loolu loolu moom loolu moom ban diine la njiitu diine te jàngoo diine te yow njiitu diine nga mais jàngoo diine léegi ñooñu nga jiite lan la ni jox nga jàngal wala nga gis njiitu diine boo xam ne day tere nit ñi ñu jàng diine alxuraan da jàtta jàng ñaata nga koy dégg ah alxuraan ah ñii alxuraan kese lañ jàng ku jàngul kon kon leneen la lu ñuy jàng ñi sharia lañ jàng sharia waaw loolu ngay dégg ñi sharia lañ topp waa ma ne suñu jàngulee diine jànguñu alquran jànguñu sharia est-ce que danañ jub moo tax Sénégal duñ jub dañuy sonn suñu bopp rek mais duñ jub c'est parce que ku jàngul diine jàngoo alquran jàngoo sunna yonent bi jàngoo sharia wallahi doo jub ak mbooloo moo mun na bokk doo jub bu la neexee nga bokk fu la neex nag waaye doo jub parce que lii jubalaate fan la ko yàlla indi fan la ko yàlla def yàlla alxuraan la ko def ba pare jox ko yonent bi ne ko jàngaleel nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax pour mu jub yàlla dafa dajale yonent yëpp def leen ay modèle indi leen ci kanam yonent bi ne ko ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal boo buggee baax toppal ñii ba koy ba leen yonent bi toppee jub yàlla daal ñi ne yéen ñi bu ngeen toppee yonent bi jub wa in tuti uhu tëhtadu kii leer na ndeysaan yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam wa ida waqa alayhim sayf lam yurfa ila yawmi qiyamati bu ngeen reppee ba deret tàmbali tuuru seen biir dootul jeex ba yawmal qiyamati su ngeen re- reppee ba jaasi jullit yëkkati jaasi jullit yëkkati jaasi ñoom ñaar ñu jàkkaarloo yeneen bi nee na loolu yowmal xiyaam rek mooy tax mu jóge fi doot fu ngeen tàmbalee di reyante dootul jeexati maanaam loolu tamit ci li mu ragal la bokkante am na ragaloon na njiit yu xamul dara jiite ñu ragaloon na xeet wi di reyante seen biir loolu am na wala amul iza waqa alayhimu sayf lam yurfa ila yawmi alqiyama su ngeen tàmbalee reyante jaasi di dal seen kaw ngeen di duurante yowmal xiyaam rek mooy tax loolu arrêté kenn dootul taxaw lam yurfa la wax kenn dootu ko yëkkati ilaa yowmal xiyaamati lu dul yowmal xiyaam jot keroog kañ la tàmbali mooy ba julli ñi reyee xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Usmaan ibnu Affan keroog la yàlla subhanahu wa taala teg fitna ci kaw jullit ñi te yonent bi nee na laa yurfa'u ila yawmi alqiyamati uqubatan lahum kenn du ko teggi seen kaw lu dul yawmal qiyam ndax mbugal la pour ñoom naam keroog ba ñu reyee Usmaan ibnu Affan alxalifa rachid amiru almuminin ba fii nu toog laa yazaalu alqital mustamirra bayna almustamir bayna almuslimin wa sa yastamir ila yawmi alqiyamati du fi jóge lu dul yawmal qiyama julli ñi dootuñu am jàmm lu dul yawmal qiyam jot ku toll ne xalifa yonent bi julli ñi jàpp ko rey ko lu fi desati lan moo fi desati dara waaw nee na nii la mbir mi amee kama axbara nabi saa sallam nii ko yonent bi waxe woon noonu la amee li des ci la yeneen yonent bi li muy ragal ñaari moom am na ñu seen ñetteel bi mu ne wala taqumu saa bés pénc du jot du taxaw xatta yalxaq min ummat xayyun min ummati bil mushrikin yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaam du jot lu dul benn quartier benn cité benn mbooloo ci sama xeet danañ dellu di jaamu ay xërëm benn mbooloo ci jullit yi danañ dellu wa maana yalxiq yattabi danañ dem di topp ji xërëm yi innama imma bi an yazabu ila biladihim benn ñu toxoo ci seen dëkk dem ca dëkku bokkaalekat yi dëkk ak ñoom gëm la ñu gëm di ko def wala sax ñu dem ñu des ci jullit ñi waaye di toppandoo musrikuun yooyu nekk ci seen yoon comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee mbokk jullit yi tey fii nu nekk nii ndax gisu leen ay jullit yu bokkaale ah du jeex li suratu yusuf yàlla naan wa maa yumin aksarahum billah illa hum musrikun da ngay gis julli boo xam ne béjjënam kër buntu këram benn béjjën bu ngand moo fa nekk wala gis leen ko ah ngandu béjjën ci buntu kër yi wala buntu saal bi wala moom ci boppam mu takk béjjën yi wala mu am ay xàmb dem di sangu ci xàmb yi wala muy tuur ay deret wala muy toj ay nen wala muy takk ay lam wala muy takk ay xaaw ay pettaaw ay gàllaaj yoo xam ne ay turu jinne ci nekk di def yi fu bokkaale yoo xam ne waaw te julli la bu ñu ne allahu akbar mu ñëw nekk sàppe premier kon yonent bi li mu doon wax ñëw na wala ñëwul mu ne yowmal qiyaam du jot wala taqumu saa la wax yowmal qiyaam du jot xatta yàlla xaq ba mu dem toppi hayyun min ummati benn quartier ci sama xeet maanaam ay mbooloo la bëgg a wax ci sama xeet danañ dem topp ji bil mushrikiina bokkaalekat yi toppaloo leen ci lépp topp leen ba topp leen ci seen pas-pas yi ci ban weer lan nekk décembre décembre décembre ñaata feet moo ci gën a rëy ñaar benn bi lan la 24 ñan ñoo ko moom ah nasaraan yi ñoo ko moom est-ce que bis bu ñu war a feetu la wala bis bu ñu warul feetu la bu ñu warul feetu la bis bu ñu war a mer bis boo xamante ne liñ ci wax liñ ci wax yàlla kuñ ko waxoon sa papa doo reer bis boobu liñ ci wax yàlla kuñ ko waxoon sa papa ah da nga am doom te amoo jabar kuñ ko waxoon sa papa fii di nga reer waxuma laa da nga dem marché di jëndi ginaar lan la wax yàlla du mu jur isa kañ bis 24 est-ce que yàlla dafa am soxna est-ce que jànguñu lam yelit wala mu yuulat jurul kenn kenn juru ko te te ñun ñun tey ñooy xëccoog ñoom feet bi bu fekkoon ne Sénégal 24 ñëpp nelaw nañ est-ce que dara dina fi yëngu mais demee naa ni boo demee Dakar dégg naa sax maire de Dakar ñaan na leen ne leen noonu ren moom du ma taal ay làmp du ma kii ndax xaalis bi dama koy jox dama koy def ci ambulance yi ñi marché seen marché bi lakkoon ci seen bagage yi ñooñu laa koy jox sinon ñu dem jël ay milliards def ko ay pétard comme ni ñu defoon daaw ay pétard pétard ay millions ñu taal ko ci ay pétard taal ko ci ay làmp guddi gi pour ne dañuy feet soroor bi gis nga grande mosquée lu toll lu toll ne grande mosquée grande mosquée lu toll ne grande mosquée nga xam ne jumaa la nii gu non mais moo tax moo tax jullit yi la leen yàlla yërëm jullit yi conscience islam la ñu manqué dañ leen warul woon bàyyi sax ñu ko fay def waxuma laak nag muy tàkk lu toll ne grande mosquée moo tax dégg naa ci rajo bi ay jullit ñaan ñu naan leen ren moom nag bu leen laal jumaa ji ngeen ñu dimbali rek ah non loolu du kaas gis nga loolu nit ñi dañuy ñëw langaamu dindi ko buddi ko sànni ko fële mais xam na ne du am xam na ne du am loolu moo tax ñu koy def ba pare mooy yenn saa yi dañ naan non nañ nañ xool ndax gars yi conscient lañ wala nañ ci boole seen jumaa ji ñu xool ñun kay wax dëgg yàlla sunu juma lu ñu wuti dana 31 ak 24 jumaa yi jullit yi mais li yonent bi waxoon mooy sax yonent bi dana àdduna bi du jeex lu dul genn wàll ci jullit yi lu toll ni quartier danañ nekk ay bokkaalekat moo ngi nii tey di ngay gis koo xam ne fi mu nekk nii mu ngi pare feet bi mu ngi pare pare moom li muy sol lu jabaram di sol lu ay doomam di sol lu muy lekk fu muy dem am na ñoo xam ne sax danañ génn réew mi ngir feetlu ji ko ñëwaat waxe ñu ne la non ñoo ngi ko passé fële quoi ndeysaan waaw te jullit nga moom ak soxnaam ay doomam yëpp nañ dem feetu ji foofu ah ci loo xam ne dégg ngeen li ci alxuraan wax yeneen bi alei saa salaam nee na yàlla day wax ci xadisu xusi ne saaga bi gën a bon bi ma nit saaga mooy mu ne man am naa doom saaga gënu ko rëy xam ngeen lu tax ngeen xam ne saaga la tey bu ñu ne woon kilifa diine yi ñi jiite suñu tarixa yi kenn da ci moom dafa am soxna benn kë- kër te amu fa jabar lu xew ah voilà ñu seet wax ji yàlla mu ne jinne yi bu ñu ko déggee ñoom sax dañ ko weddi jinne yi dañ ne wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada wa annahu kaana yaqulu safihuna allahi sab asamaan da koo weddi yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattarna asamaan mi ngi xotteeku suuf mu ne wa tanchiqul ard suuf di xar wa taxirul jibaal montagne yi mab lu ko waral mu ne an daaw lirrahmani walada ndax nee nañ yàlla am na doom allahu akbar te wa maa yambagi lirrahmani an yattaxisa walada yàlla warul am doom koy mu koy doy doom ku manqué moo koy am te yàlla dafa mat doom ki ki soxla ki am doom mooy ki soxla ëllëg doom ji taxaw ci wetam di ko jàppale yàlla amul doom kon yonent bi li mu waxoon moo nekk suñu kaw sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa hatta taabudu fi'aamun min ummati al awsaan danañ dem ba lenn ci nit ñi di jaamu ay xërëm nag dootuñu yem ci bokkaale waaye dañuy lem léegi di jaamu xërëm waaw di sujjóot ci ay bàmmeel ak di raay ay xeer ak am na benn dëkk boo xam ne benn sëriñ moo leen sampal xeer dëkk baa ngi tudd Giro Giro Giro xam nga Giro Giro mu ngi ci yoonu mbuur bi am na fa benn xeer boo xam ne dañuy dañ koy raay dañ koy raay xeer bi dañ koy raay da ngay dégg ñu ne xeeru sëñ bi ah baal ma de kii foofu la dëkk ana seen xeer ba mu ngi fa ba léegi ma nga fa dañ koy raay ndey ñu ngi ne xeeru sëñ kenn xamul ñaata at la boobu ba léegi gars yi dañ koy raay raay ay xeer ñii di raayi bàmmeel waaw ñii di loolu baaxul loolu baaxul loolu xërëm la benn place dong dong dong dong lañ ñu jubluloo ak raay ko muy kaaba gi ak xajaratul aswad te xoolal omar ibnul xataab bu mu ñëwee ba ci xeer wi dafa taxaw xool xeer wi xeer wi xool ko mu ne ko alimtu annaka xajar la tadur wala tanfa walaw lam ara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqbaluka ma qabaltuk wallahi xam naa ne yow xeer kese nga doo jëriñ doo lor su ma gisul woon yonent bi di la fóon duma la fóon daal di fóon xeer bi romb ko Omar loolu la def ci xeer xoolal ñun ah ñun waxuma la ay xeer lu ne dañ koy fóon lu ne lu ne da ngay gis sax sijaada bu ñu julli ba pare nga gis ku naan ni sijaada bi di raay di def ci jëwam sijaada bi di raay ay karo lu ni da ngay dégg ñu ne fii la waa ji toogoon rek ñu ñëw di raay foofu di diw ci kanam yi ndeysaan bi ma aji jee ma ànd ak ay jigéen di leen yóbbu ak ay nit ay mbokk di leen yóbbu ci ñu dem ziyaara ji kër gi yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam ñu yegg si rek gars yi di raay di raay kër gi naar bi doon garde bu kër gi mu ne ma salaamaaleykum ma ne ko waaleykum salaam mu ne ma yaa ànd ak ñi ma ne ko waaw mu ne wax leen lii ciment la de lii ciment la de lii du dara te bàyyi nañ ko foofu ñu jógee waaw na dëgg di ciment la di lii nii kare yi boo ko raayee nii fu mu jógee du siin xanaa kon siin ngay raay ban njëriñ la am lii mu njëriñ boo raayee bunt bi lii garab rek la bant la ban njëriñ la am boo raayee sijaada bi ban njëriñ la am ah da ngay gis xoolal kurus kurus da ngay gis ku wirdi ba pare boxam kurus bi ci loxo bi boxam ko boxam boxam tëdd daal di diw kurus gi ci kanam gi déet yow kay boo wirdee ba pare da ngay teg kurus gi yëkkati say loxo ñaan yàlla tëf li di sa loxo ñuy kurus gi lu mu ci sa të të të të kurus gi ci boppam day bu ñu booy ñaan da ciy bokk foog nga def ko nii dugal ko ci loxo bi ne nii xuruj xuruj xuruj xuruj tëtëtë day di diw lii lan la bokk yow ñaanal lan la wax jublul xibla nga ñaan mais nit ñi sénégalais moo bëgg ci boppam affaire xërëm affaire bokkaaleel ci boppam lañu moo dee seen xol yi daanaka lu yomb lañ bëggul ñoom diine bu amul bokkaale rek du diine waaw julli kese rek ñii julli rek dem nii ah ah lii yomb na de dangay ñaan nii rek dem amul lenn looy takk amul lay looy diw sax di ñaan même bu nit ñëwee ci yow toog sax ne la ñaanal ma nga jàng ayatul kursi yu lixlaas falax ak naas tëf tëf naan ah wa ndax wax sëñ bi amul loo may joxaale ma yóbbaale ko lu mel nan lii kay doy na lii kese doy na ndax lii moo doyoon yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko doyoon war naa doy jullit ay déedéet foog ñu takk ay wëñ yu xonq da ngay gis ko loxoom di metti mu ne la ñaanal ma nga ñëw mu ne waaw dama bëgg nga fasal ma ko fas nga ne ko non kenn mu ne non il faut ñu fas ko parce que man non il faut ñu fas ko il faut nga takkal ko wëñ gu weex wëñ gu xonq wëñ gu ñuul xelam di doog a dal mais ñaan bi kese nii daal di ko ciy def du ko doy julli nag bu demee ba yokku yonent bi doyatu ko lan moo lay doy mu ne moom yonent bi yamagul ci loolu ba tey de ci li mu ragal mu ne wa hatta taabudu fi amun min ummati al awsan danañ dem ba lenn lenn fi am al jamaa fi am mooy jamaa mbooloo danañ dem ba mbooloo mi di jaamu ay xërëm allahu akbar mbooloo xoolal tey mbooloo yi ndeysaan mbooloo yi ay gis ay mbooloo yëg ci ay oto di jaamu ji xërëm fu njëm dañuy defi xërëm yonent bi moo wax dëgg sallallahu alayhi wa sallam jamaa fi am ay mbooloo groupe yi groupe waaw lu xew dañuy jaamu ji xërëm nan dem ah man kay dew ma ñu ne ah ñun de dund dem dee dem yal na yàlla jubal yal na yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko affaire yi yombul de xéewalu yàlla la xéewal bu kër bu kër di tàkk safara si wër kër gi bu woor yëpp yaa ngi ci biir safara si nga jékki-jékki ñu ne la coppet sànni la ci biti nga génn ci santal yàlla foofu lan toll tey mooy lëndëm gi wër àddina bi lëndëm gi jullit yi nekk yàlla seppi la ci sànni la fële amul lenn looy jaamu ci xërëm amul kenn koy topp ku dul yonent bi amul kenn koo gëm ku dul yàlla amul lenn loo teg sa tànk dul alquran santal yàlla santal yàlla de santal yàlla yii nit ñi nekkee tey mu nga nga génn ci nga am liberté nga féex bu nit ñi di kër kër yi fi mu nekk am na ñoo xam ne lekkatuñu naanatuñu ñu ngi la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yal na yàlla jimbali jubal nu illaahi yonent bi moo wax dëgg yonent bi nee na wa hatta taabu fi amun min ummati al awsaan al fi am al jamaa al awsaan nag mooy kullu ma ubida min dunillah loolu mooy xërëm mooy lépp lu ñu jaamu te du yàlla rek loolu xërëm la yonent bi pare na foofu mu ne waat encore li ma ragal mooy lii wa annahu li wër tey mbir sa yakunu dina nekk fii ummati ci sama xeet kazzaabuuna salaasun kulluhum yazaamu annahu nabi mu ne wa ana xaatamu nabiyin la nabiya baadi hadis bi de wax dëgg yàlla waa Sénégal waroon nañ cee rus hadis bi hadis bi waa Sénégal waroon nañ cee rus yonent ne dina nekk ci sama xeet fanweeri fenkat danañ feeñ ci sama xeet kenn ku nekk ci ñoom di nga woote ne yonent nga yàlla la yónni mu ne kenn du ci yonent maa mottali yonent yi yonent du ñëw sama ginnaaw lii doyul léegi bu ñu demee ba ñemee dëkk bi ñemee nit taxaw naan diw rasulullah diw rasulullah waxuma sax ñooñu ñeme loolu mais ñu utal leen rajo ñuy wax loolu ci seen rajo yi ñëpp di ko dégg diw rasulullah ñi doon ànd ak waajoo ñu naan leen ay saxaaba ah ñu bëgg na Sénégal am na yonent fii am nañ yonent ñun ñëpp di ko dégg am ñuy bokk ci loolu ñu am seeni heure julli waxtu am façon bu ñuy noddee am façon bu ñuy jàppee ah ah am ay nit ñu topp ñooñu te yonent bi wax lii waa léegi mbokk yi waxi yonent bii ak ñee ah lu ciy dëgg léegi kon nu nuy def dañuy noppi ci waxu yonent bi toppalee waaw léegi boo ko waxee ñu ne déet yow da ngay tooñ xam nga yow da ngaa war a gëm li nga gëm da ngaa war a maandu c'est parce que xamoo moom li mu wax fu mu ko teg di waay yow fu mu ko teg yonent bi wax wax ji ñun ñu bëgg nanu maandu nan noppi te yonent bi wax lii laa nabiyya ba'di ñu bëgg noppi loo nit ñi ah sëñ bi kaay la ñu xoolaat lii wala lii di waxu yonent bi fekk waxu yonent boog ñu wax ko yonent moo ko wax de ba pare sax alquran moo ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa loolu loolu du maa mottali yonent kon bu Sénégal amee yonent Sénégal am yonent ñu ne ki ñuuloon fii moo weex fii ki weex fii moo ñuuloon fii mu xaw ma ki weexoon fële moo ñuulaat fii moom la waaw biñ ko dencee la ñëw tëdd fii ci xuntu mi waaw dëgg-dëgg mbokk yi war nañ xoolaat sunu pas-pas war nañ xoolaat loolu wax jooju en tout cas yonent bi moom moo ne fanweeri fenkat danañ feeñ gis nga yonent bi ba mu waxee wax ji génnul àdduna lu dul ñaar feeñ ci jamono yàlla dimbali ko kenn ki ñu mu ñu rey ko ci kanamam keneen ki mu génn àdduna Aboubacar mi ko remplacé takk xare fexe ba rey waa jooju muy Musaylimatul Kazzab boobu ba léegi ay dajjaal di feeñ naan ay yonent lañ yàllaa leen yónni boobu ba léegi te yonent bi moo ko waxoon lu soriwul dara ci kanamam nit ñëw ne ko yonent la waaw di bind ko leer moom yonent bi ne ko maa ngi la yëgal ne lettre bi mu ngi bàyyoo koo ci Musaylima yonent yàlla jëm ci Muhammad yonent yàlla suuf si nañ ko xaaj ñaari xaaj nga jiite lii ma jiite lii yonent wëlbati kayit bi allahu akbar ne ko min muhammad rasulullah ila musaylimatil kazzab lettre baa ngi bàyyi ko ci muhammad yonent yàlla bi jëm ci musaylima fenkat bi nga ne suuf si nañ ko xaaj ñaar nga jiite ma jiite maa ngi lay yëgal ne suuf si man ak yooyu moomu ko innal arda lillah suuf si yàllaa ko moom gis nga loolooy dëgg parce que bii dafa leer parce que dëgg la waaye mbokk yi ñun naka lañ mën a amee yonent ay waay waa Sénégal la neex rek mu ne wa annahu sa yakunu fii ummati dana nekk ci sama xeet gis nga umma ba léegi yonent bi umma bi bàyyiwu ko fii ummati kazzaabuuna salaasuun fanweeri fenkat kazzaabuuna la wax de te man waxuma wax ji de boo amee kuñ ci war a dóor wala kuñ ci war a duma nañu wëri ko ko wax man dama koy nettali kazzaabuuna la wax fanweer fenkat salaasuun ñu ne yonent bi ñooñu lu ñuy def mu ne kulluhum yazaamu kenn ku nekk ñoom dana gëm dana woote annahu nabi ne moom yonent la mu ne wa ana xaatamu nabiina man maa mottali yonent yi bu yemul foofu de wax ji rek doyoon na mu ne laa nabiya baadi yonent du ñëw sama ginnaaw laa nabiya baadi laa nabiya baadi la yonent bi wax waaw laa nubuwata baada muhammad allahu akbar laa nubuwata baada muhammad léegi nag ñun buñ gëmee ne yonent mu ngi Sénégal bàyyi nit nekk ci tey ñu koy woy ci rajo yi di ko génne télé ay mbooloo ay niti niti niti nit di ci dee fuñ jëm
kooku moom moo woote boppam wala bu mu faatoo lañ lañ ko tuumaal ni yonent
ñaari bu fekkee moom moo woote boppam wérul bu fekkee ne ba mu dee lañ ko tuumaal wérul ñaari benn wéru ci waaw benn wéru ci ba pare ay wax yoo xam ne amul benn dalil te lu doy waar mooy da ngay gis ñuy jël waxu yonent bi dig ne moom moo ko wax waaw waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw naan yonent bi waaw diw ñu ne sallallahu alayhi wa sallam di ko woy dañ koy woy woy la woy woy dana metti ëllëg yow ma xiyam de wallahi ku fi bàyyi waxu yonent bi bëggam leneen ku topp leneen lu dul waxu yonent bi ak waxu yàlla ak alquran ak sunna sa yow ma xiyam dina metti man yërëm naa sama bopp de waaye yërëm naa ki gëm ne yonent yonent ñëw na Sénégal yërëm naa ko ki gëm pas-pas boobu moo tax war ngeen fexe ngeen xàmme ñu mel noonu ba jàkka yu mel noonu imaam yu mel noonu ngeen bañ mu ngeen mu ngeen bañ mu jiite leen te kuñ jiite amoo julli
waaye dañuy faral di wax naan dañuy wax dañuy faral di wax naan laay nabiya baax laay nabiya baax bi ñoom laay nabiya luy laay
laay maanaam laa bi yonent bu maanaam laa bi laa bi laa bi dañu ko changé am sa sa ñoom ñoom sax ñu def ko laay waaw ñoo ñu def ko laay ah ñu ne laay moom nabi la kon waaw waaw ñu ne laay nabi waaw mais xaatama nabi ni suñ koy di alxuraan bi nag dañ boobu tam dañ koy changé xanaa maa mottali yonent yi mottali maa leen mottali suñ ne kii moo mottali lii est ce que dañ ci yokkaat dara lu mottali kay mën na jeex na tag ah xaatam mooy tëj xam ngeen fu ñu ko jëlee baatu xaatam mooy lii xaatamun mooy jaaro ba ñu kastee fii dara mënatu cee suude waat yokku ñu su ne ko xaataman nabiyina moo mottali yonent yi hmm? ba ko tëj ba pare yemu ci mu ne laa nabiya baadi laa ci arab ñëpp xam nañ lan la mooy lan mooy déedéet yonent sama ginnaaw waaw mooy arab léegi nga gis yonent bu ñëw ginnaaw yonent yàlla muhammad waaw muhammad alxuraan la indi woon léegi yonent bi nekk Sénégal lu mu indi hmm? yonent bi de moom bi mu ñëwee bi ñu ko nee luy sa mujiza Moussa bi mu nee tëll ñu ne ko luy sa mujiza mu dugal loxo bi ci biir poqataan bi génne mu weex mu sànni yat bi mu nekk jaan mu ne lii mooy sama kéemtaan Isaa ñëw ñu ne ko luy sa kéemtaan mu ne damay dekkil ku dee ku gumba ma raay ko mu gis ku am boos bu ma ko ñaanalee boos bi dem ah yonent bu ñëw ñu laaj ko mu indi kéemtaanam yonent bu ñëw ñu laaj ko mu indi kéemtaanam Muhammad ñëw ñu laaj ko mu indi alxuraan aywa ñii nag ko sànni ci safara si xul naa yaa naar kuni bardan wa salaaman ala ibrahim ko sànni ci safara si yàlla mu ne safara si tàkkal de waaye bul ko laal waaw ah yeneen yëpp indi nañ mujiza sallallahu alayhi wa sallam ñi ki nag luy mujizaam fekkee yonent la yàllaa ko yónni ay na mujizatuhu ndeysaan ana mujizatuhu ibrahima ba mu dajeeg namrud namrud ne ko kuy sa borom ibrahima daal di koy wax mu ne ko loolu mun naa ko mu ne ko mun nga lan mu ne dundal nit ak rey nit mun naa ko ku mu fekkee sa yàlla loolu lay def mun naa ko ne ko defal ma xool mu génne ñaari nit ci kaso bi rey kenn ki ne kenn ki baal naa la est-ce que loolu la Ibrahima namoon mu ne Ibrahima ne ko d'accord léegi yàlla day yóbbu fii jant bi bu ko yàlla yóbbu fii yow indiwaat ko mu xam ne mënul loolu mu ne tëj leen ko gis nga Sénégal nag dañuy def seen caaxaan ba pare ñu ne kenn du ko fi waxee nag doo ko laaj de non non du laaj da ngay bokk rek mbaa nga bàyyi amul laaj ah loolooy la gis nga billaahi nit ñi bu ñu leen bàyyi woon nit ñi di leen laaj léegi seen affaire yi fay parce que amul dalil mais ñemewuñ débat boo waxee rek ñu ne dóor leen ko dóor leen day dingat rey leen ko lakk leen këram def leen ko nii parce que xam na ne du dëgg buñ leen bàyyi woon ñu leen di laaj ñu indi leen ci digg stade bi ñu ne bismillah ñoo leen ngeen laaj ko billaay buy ñibbi du sol daal wala dina ñibbi te heure ñibbeem jotut parce que du dëgg waaw du dëgg waaye nag gis nga looloo tax mbir mi du feeñ parce que duñ leen laaj kenn du leen laaj da ngay ñëw rek bokk te noppi bokkal te noppi bokkal te noppi bu fi wax de fi kenn du laaj ndax mbir mi du affaire laaj baña laaj ñu doon laaj yonent bi saaba yi daan ko laaj muy tontu gis nañ nga def tey nangam lu tax nga def ko yonent bi tontu julli na ñaar rakk sax jóg yaa ne ko ah waaw tey ñaar rakk nga julli de mun a julli ma ñaar rakk de ñeent laaj gaa ne ko ñaar rakk nga julli waaw kon de damaa juum ne yëg na ci minbar bi ne amin amin amin pare bëgg a dem gaa ne ko déet lii nga def tey mosoo ko def lu xew mu ngi nii ñun nag ñu ne la fii ku fi nekk da ngay nangoo nekk taalibe rek taalibe ay wommatu wommatu bu la yóbbu safara nga wommatu loolu moom du diine waaw du benn diine moom mu ne wala tazaalu du deñ taifatun mbooloo min ummati ci sama xeet alal xaq mansuura wallahi lu nit ñi réer réer réer alku nag am na fi mbooloo moo xam ne nit ñoo xam ne lu nu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti kenn mënalu leen tus nag ci dëgg la ñuy nekk gars yi nañ leen bañ dañ leen xas dañ leen saaga dañ leen tam ay dëmm mais kenn mënalu leen dara weng la ñuy def kenn mënalu leen dara de waaw nañ ci yàlla boole taifa gis nga mbooloo min ummati yi alal xaq mansuura yàlla da leen di dimbali parce que ci dëgg la nekk dañ ciy sax rek même bu xumbul nag même bu bëriwul nit waaw ñu sax ci rek parce que du affaire yi du xumb xumb yéesee nga di ku ne ah xam nga dëgg gi fii la xool nu mu xumbee xoolal boisson bi ay paan la xoolal yàpp bi xoolal xoolal affaire bi du affaire u lekk du affaire u boisson du ay canette àjjana lañ bëgg àjjana du du la àjjana moo gën a neex lekk allahu akbar yow lekk lekk lu mu neex neex après na def 24 heures na def 24 heures sa biir bi kon kay du affaire lekk du affaire xumb xumb du affaire affaire bi dëgg la alxaq loolu lañ soxla mais fii boo xam ñu ne moom xam nga ne lii mos bu doon dëgg la nit ñi ñëw wax def ko alxuraan ba mu commencé ba léegi yonent yi bañ commencé ba léegi ban yonent ngeen gis dëkk ba yëpp topp ko ah kon du affaire mbooloo affaire dëgg la dëgg gaa ngi nii lii la yàlla wax lii la yonent bi indi ñii ñi daal di koy topp dëgg la du question mbooloo yonent alayhi salaatu salaam ñoo na woote waaye la ko topp tuuti la Ibrahima woote na la ko topp tuuti la Nuux woote na ba sonn benn kër a ko gëm benn kër yonent bi saa salaam ba muy nettali ci hadis yi passé dana gis nga yonent boo xam dafa ne tëll dekki ñetti nit ñoo ko topp am koo xam ne ñaari nit am na yonent boo xam ne bi mu ne tëll kenn topp ko amul nit allahu akbar amul nit ñu jékki-jékki benn yonent ne tëll ñu gis sawaadun azim ñuul koog kooku li ko topp bëri na xoole ki kenn topp kon ñun ñi nga fa nit ñi dinañ topp fekkee ab yonante yàlla toppul kon nga fa nit ñi dinañ leen topp di ngeen wax ba nit ñi ñëw topp leen déedéet parce que iblis moo leen ëpp doole moo leen ëpp ay pexe moo leen ëpp ay moyen moo leen ëpp ay kat-kat moo leen ëppale moo leen ëppale moo leen ëppale waaw wala fii ay nag la ñuy reer gars yi di lekk ñoom loolu lañ topp lekk lekk rek mu léegi nii boo amoon ay nag vestade bi fees nga commencé di woote léegi nit ñi ñëw nga julli commencé jublu nii waaw nit oolee ñu ne du dëgg dañ naan kii lu bees la jot lan lu bees xoolal Aboubacar bi yonent bi demee Aboubacar indiwul lu bees ginnaaw yonent bi est-ce que indi na lu bees wax na waaw julli gi ñeenti ràkk la woon waaye boobu yonent bi nit ñi dañoo dañoo tuuti woon léegi nag nañ ko wax na lool nañ ko wàññi est-ce que Omar ñëw na ne waaw weeru koor la woon weer la woon wow nit ñi nañ ko wàññi est-ce que Ousmane wax na waaw añ màkk dafa sori yéen ñi sori ñi bu leen ñëw ngeen bàyyi ñun ñu jege ñi wallahi la yonent bi ba indi woon ñoom tarfatal ay ni wàññi wuñ ko ci bal sax dañoo xeex ak ñi bëggoon wàññi Aboubacar dafa xeex ak ñi bëggoon bàyyi azak ñu ne woon ñun danañ julli danañ joxe azak Aboubacar dana billaahi wallahi dërëm bu ngeen doon jox yonent bu ngeen ko bàyyi ma xeex ak yéen Omar fekk ñi nga xam ne ay saay-saay lañ woon di naan sàngara ñu leen di caw ay fukki yar ak fanweer ñuy naan bañ a bàyyi Omar yokk yar yi def ko juróom-ñett fukki yar waaw ba nit ñi ne cocc ñëpp jóg allahu akbar radiallahu anhum wa ardaahum mbokk yi yonent bi nee na ñooñu mbooloo moomu noonu rek la ñuy mel laa yadurruhum man xasalahum du leen lor mukk ku leen bàyyi du leen lor ku leen bàyyi du leen lor du leen wàññi dara ku leen wuyuseeg ku leen ñàkk wuyusi ku leen ku leen ku leen seen yoon nekku ci laa yadurruhum du leen lor man xasalahum ñi leen di jéem a gàcceel hatta yaati amrullah ñoom noonu la ñuy mel ba mbirum yàlla dikk noonu la ñuy mel ne keng dëgër hatta yaati amrullahi tabaraka wa taala ba mbiram yàlla rek dikk kenn mënul leen dara kon mbokk jullit yi ñoo xam ne mbir mi mbirum dëgg la mbirum pas-pas la du mbirum farfarloo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko doon leeral moo ko doon wax lépp nekk dëgg amul lenn lu ci deltu ginnaaw yonent bee ko doon wax tey ñun ñëpp ñu teg ci sunuy bët waaw bu ñu tegul sunu bët lépp it genn wàll gi teg nañ ci bët kon lu ci war mooy ñu jéem a jaar ci yoonu mucc yoonu dëgg ñu moytandiku yoonu farfarloo ndax yonent bi nee na mbooloo mi ci dëgg la ñuy nekk yàlla di leen ci dimbali lu leen nit lor lor lor lu ñu leen mën a def lu ñu leen mën a gàcceel du leen wàññi dara dóor yeeg xas yeeg rey geeg tëj geeg dara waral boobu ba léegi ngay dégg rek chaque jour nga dégg ahlu sunna li ñu leen di wan ci àdduna ñuy rey di dóor barki démb da ngeen ba dëkk boobu France di yónnee ay dëkk ay soldats Centrafrique xeex bi ngeen fay dégg xam xam nga xam ne leeraluñ ko jullit yi ak yéeféer yi te yéeféer yi leen tooñ de ñu leen bàyyi bañ nekk jàkk yi ñëw rey leen rey ñi doon julli ñëpp léegi bi julli ñu jëlee armes yi di fayu ñu yónni France ne ko demal bu ñu fayu te xoolal du ñu wax de dañ naan ay xeet ñooy xeex déedéet xeexu diine la ay jullit ak ay yéefér jullit ñi dañ fa tuuti ñoom lañ bëgg a génne wax naa leen chaque jour gis nga allah bépp dëkk bu jullit ñi tuuti jullit du wax saa yoo déggee dëkk bu jullit ñi di wax rek mooy dañoo bari comme Nigéria gis nga foofu xool leen chaque jour dëkk yi nga xam ne jullit ñi dañoo tuuti du wax dañuy rey rek dañuy rey rek waaye dëkk yi nga xam ne jullit ñi dañoo bëri comme nii dañuy ñëw ñu leen di jéem a négocier ay islamo chrétien ay dialogue ak ay nangam ak nangam ba pare dañuy dem ci biir dëkk ba benn parti bi ñu fexe ba chrétiens yi dëkk fa ñu jox leen doole comme ni ñu def Casamance. gis ngeen Soudan noonu lañ def ba dagg sud Soudan bi def jox ko catholique yi bépp dëkk bu jullit ñi bari dañ fexe ba benn ruq ñu nangu ko jox ko yéeféer yi. yàgg yàgg Casamance gi fekke nañ ko fekkewuñ ko fa la jëm fekke nañ ko fekkewuñ ko fa la jëm dañuy jékki-jékki dagg ko jox leen ko mu ngoog ñun yàlla dimbali yeneen yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yeneen yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko ba mardi bii di ñëw insha allah ñu continuer dars bi insha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu